kële na ñëw xamee royuwaay bi. <laughs> voilà mi ngi noonu euh, miroir de l'islam euh, Serigne ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom mooy grand prix international bu le président Macky Sall euh, pour le récital du Coran mu nekkoon nag journée bu amoon solo ni ki démb rek gis nañ Walfadjri mi ngi ko doon def en direct te yow sax yaa fa teewoon dama lay bàyyi rek ak ki nga xamante mooy ñu daal di ko yaatal wax ngëneel wala boog baax baax yi nga xamante ni moo rootee ci boobu la bis. ci phase finale yi la ñu nekkoon ni ki bërki démb commencé le 13 décembre di bërki démb si àllarba démb. muy phase finale yoo xam ne yu serré la woon quinze candidats yu bàyyi ko ci réew yu bëri yoo ñoo ko doon xëccoo euh, ku ci mel ni Moussab Moubarak Abdallah bàyyi ko Kenya euh, madame Mbacke mm-hmm. euh, Azizatou Ba di benn ci ñaari candidat wu Côte d'Ivoire yi mm-hmm. amoon na Mouhamad Faye Mouhamad Faye Gambie la bàyyi ko mm-hmm. waaw Rajab Regab Bilal bàyyi ko Algérie Oumar Ly bàyyi ko Mali. Mali Ndeye Bousso Diatara di candidate. bu Sénégal Sénégal. Mhm. ak Maymouna Badegui Hussein Nigéria la bàyyi ko. ak. Euh, euh, Ibrahima Sow mhm. Côte d'Ivoire mhm. amoon na Abdourahman Moussa Abdullah bàyyi ko Kenya mhm. Omar Mohamed Moustapha Abdul Abdel Qadir Ahmad bàyyi ko Égypte amoon amoon na Ahmad Mawloud Abdul Qadir bàyyi ko Nigéria Moustapha Touré bu Sénégal Moustapha Touré moomu moo jëloon concours international bi ca Arabie Saoudite ak euh, Hachim Hachim Badruddin Sultan bàyyi ko Algérie mhm. ak Omar Touré bàyyi ko Mali ak mhm. Mohamed Ba bàyyi ko Gambie macha allah euh, concours boobu noonu concours international la yeneen i réew lañ ciy tudd mu doon une première yéen ñi nekkoon ci organisation bi li lu yéeme la de. waaw yéeme na ndax euh, ginnaaw bi ma leen nuyoo yéen ñëpp. Mhm. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ndokkale ci liggéey bu rafet bi ngeen def yéen waa Walfadjri. jërëjëf ci direct bi. Euh, man maa ngi tudd Adja Awa Diong madame Mbacké comme ni ngeen ko waxee. Uh-huh. nekk inspection des daara. Uh-huh. d'accord ci biir ministère de l'éducation nationale. macha uh-huh. allah bon organisation bi euh, dafa nekk loo xamante ne c'est une première. mu nekk fii ci Sénégal. ndax président Macky Sall dafa gis xale Sénégal yi di dem à l'extérieur. di joŋante ci alquran di jël ndam le di ko indi Sénégal. mu ne lan moo tax xale yi di dem di jongante ji di indi ndam li te ñun Sénégal aussi mënuñoo fexe organiser jongante bi. ba mhm. xale yi ci réew mi wa gën a wone seen seen seen xarañteef. Mhm. ci loolu fekk xam nga daaw. waaw yéen a ngi fàttali ko journée. journée 28 28 euh, euh, novembre bi passé nga xamante ne journée daara la ko def. Mhm. recevoir ci mbooleem communauté daara. institutionnaliser journée bi. institutionnaliser ko ba pare. wëlbatiku. def ci fukki mesure ak ñeent yoo xam ne lépp da ko réaliser moom président ah bii ci la bokkoon bii nag moo ci do moo ci dolli ko kon jot na ah, réaliser moo dolli ko ci quatorze yi mu nekk quinze quinze ok macha allah mhm. euh, moo muy loo xamante ne nag lu am solo la ci def mooy président Macky Sall mhm. mu ànd ko ak équipe bam bi nga xamante ne vraiment mooy mhm. le ministre ministre de l' éducation nationale. l' mooy mm-hmm. docteur Cheikh Oumar Anne. Mm-hmm. mu ànd ak cabinet boobu nga xamante ne le secrétaire général. Mm-hmm. madame Khadijatou Mbodj. ñu koy nuyu bu baax. au passage ndax ku ci sonn la. moog la daaj. di nuyu suñu directeur. muy monsieur Babacar Samb. moom aussi équipe bi nekk ci ginnaawam. muy une équipe technique boo xamante ne macha allah seen liggéey dañ koo doxal ba mu ëpp sax niñ ko foogee woon. donc kon lii nekk une première. ñu organiser ko fii ci Sénégal nga tudd xale yi nga xamante ne macha allah ci dëkk ya ñu nekk dañu fa mokkal mokkal bu rafet. nekk fa ay champion ci critères yi bokkoon ci à dire da ngay bokk ci da ngay jël concours national wala nga jël concours international pour nga mën a bokk ci concours. même fii au niveau de hmm. pour ñu tànn sax dañu amoon problème. Ah parce que xam nga Sénégal dafa bëri. ñoo xam ne dañoo mokkal te jël fa ay coupe ñëw. Hmm. keroog bi ñu koy tànn institut islamique. Hmm. dañu amoon problème. waaw ah oui mais macha allah. jury bi nekk jury boo xamante ne dañu maandu. te mën seen liggéey. xam li ñuy def. ñu tànn ko ci tànneefu am solo woo xamante ne. Mhm. am équipe boo xamante ne secrétariat la. Mhm. ñoo leen di tegal point yi de point à point ba ñu tànn ko ci tànneef boo xamante ni mhm. amuñ ci benn patron. jury bi Mahmoud Hassan Bousso moo ko jiite. moo ko jiite macha allah. di ko ko moom it day nekk ab sénégalais aussi ràññeeku lool ci mbirum concours yi ba fépp ñu jox ko ndam xam ne kii moom hmm. saaxibul quran la voilà balaa ñoo woowee soxna dañuy daal dalal suñu gànnaar si euh, première partie bu koy waay hmm. muy Cheikh Ahmed Tidiane Faye vraiment c'est plaisir ñu dalal la ci plateau ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoonte téléspectateur yi waaw subhanaka allahuma nashhadu annaka anta la ilaha gayruk natuub wa natawakkalu alayk hmm. ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين soxna Awa ñu ngi lay fay. di la nuyu di nuyu waa Walfadjri di nuyu Serigne di nuyu Maam Jaabi mhm. Gassama ak mhm. soxna su baax si nga xam ne mhm. ñoom ñooy taxawu daara yi di leen ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala bàyyi ba ca kanam kanam di nuyu uh, kilifa kër gi di Cheikh Mouhamadul Haafid mi nga xam ne moo fi wuutu way juróom bu baax boobu Seydina Mouhamadul Amin Niass di ko ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala yokk ko yërmande fa mu nekk waaye di nuyu uh, kilifa diine rawatina ñi nga xamante si ne ñoom ñooy yor daara institution bu mag boobu ñuy wax daara di ci amal liggéey bu baax baax. nga xamante si ne tey bu di fu diine ji àgg. ak li ma dëgëree. ñoom dañ cee contribuer. kon di nuyu ñooñu bu baax a baax di jiital nag kilifa ga nekk kokki ki le euh, directeur général de l'INS islamique Cheikh mm-hmm. Moussa Khilal kooku Cheikh Moussa Nallo. voilà mi la noonu incha allah bu kenn mais ñu sekk waxtaan bu yaatu yaatu. Mm-hmm. alors Serigne ma bàyyi nga daal di wéyal. waaw euh, kon euh, Hadja Awa. Mm-hmm. madame Mbacké léegi yéen ngeen organiser ko. yéen ay waa daara ngeen. waa daara lañ. jàng alxuraan. c'est njàng ma tey jii nii résultat yi génnagul soxna wa mhm. madame Mbacke ndax résultat yi le 16 la war a génn. devant le président la république. muy suspense boo xam ne fi mu ne nii ñun ñi ko fekkee woon ñëpp ku nekk naan kin moo mhm. kan moo war a gagné. mais njàng ma ñu fa teewee fan yii yëpp. te mu nekkoon en direct sur Walf TV njàng moomu yéen en tant que ñu jàng alxuraan xale yi li ñu jàng yéemu yéemul leen. yéeme na macha allah. Mhm. moo tànn bi dina métti. Mm, tànn bi tànn bi ci boppam. Mm. pour génne vainqueur bi. vainqueur bi dina métti. ndax jàng rek nga jàpp ne kii moom moom moo la jël moo moo moo dàq jàng respecté na yëf yi macha allah les meilleurs lañ jël quoi les meilleurs lañ jël dëkk bu ci mm. nekk que fa la ñu indi mu ñëw fekk si Sénégal ci ñi fi raw xam nga kontaan bi dina métti moo tax suspense bi nga wax moo ci nekk ba léegi si actuellement xale yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dañu nekk ci benn stress boo xam ne ah ah ñoom ñëpp dañuy seen kanam démb boo leen ko xoolee sax da koy liir ci ñoom léegi nag ñu bëgg aussi le 16 mobilisation bi ci hmm. association daara yi hmm. ci ñi nga xamante ne ñooy maître coranique yi ci acteurs yi nga xamante ne ñooy liggéey ak daara parce que daara am na hmm. ñoo xamante ne dañ koy jàppale nekk ci biir ministère bi nekk ay affilié ci ministère de la euh, de de l'éducation di jàppale daara donc mobilisation bi incha moom la ñu bëgg samedi nga xam ne suba jàmm muy le 16 à partir de 9 heures nga xam ne ci kanamu président de la république du Sénégal muy mag Sall li tax ñu tuddee ko jaayisa bi nga xamante ne ñu tuddee ko lii nga xam ne mooy concours bi. Mhm. c'est une première. Mhm. xam nga Sénégal concours bi du du mais prix Macky Sall. waaw le président Macky Sall parce que daf ko décrété. Hmm. maanaam keneen ku ko wuut it fii ba buuf te di wal ah, concours bi day continuer xam nga loolu am na solo ci ko ko def maanaam dañ ko ko honoré parce que ah, ah, hmm. ñu ngi ko koy sargale que c'est une première hmm. xam nga fii président bu ci nekk jaar na fi Abdou Diouf nekk na fi gis nga man nii bi may jàngale arab mhm. nekk mu àllimal arabiya mhm. booba matière bi mhm. était facultatif waaw ñun ñi nga xamante ne ñoom lañ lañ njëkk a recruter ñuy jàngal arab ñun ñi njëkk a recruter ci lañ bokk ñu ngi doon commencé cinq heures ci ngoon ba six heures trente waaw te xale yi dañuy tànn ku mu neex doo doo facultatif ku mu neex bokkal ku mu neex doo bokk mm. ñun mën ngaa am effectif sax fukki élève mm-hmm. léeg-léeg yi ñëw léeg-léeg élèves yi ñëw waaye xoolal ñu góor góorgóorlu jàpp ci li nga xamante ne mooy alquran mm-hmm. jàpp ci li nga xamante ne jéego la gëm ko ba pare di ko joxee nekk ci ay jéego ñu nekk ci mm. ba jéggi loolu mm. ba ab Ablaye Wade ñëw jël mawaad diini yi dugal ko ci biir système bi mm-hmm. ñu génn ci loolu Macky Sall ñëw indi lii kon ay jéego yu rëy la pas yu rëy la Macky Sall def yu rëy la def léegi moo tax ñu tuddee ko ko mais turam bi du ci sax keneen mën naa ñëw. moom daf ko waxoon nañ def grand prix international du chef de l'état. parce que xamoon na ne moom joxe na kàddoom ba pare. ci day dem mais nag ñu honoré ko ko parce que dafa def lu rëy. Mm. décret bii mi ngi doog am. Mm. Mm. donc kon loolu tax ñu honoré ko ko def ci turam. mais macha allah li mu def ci diine def ko ci daara ba pare recruter. 500 maîtres coraniques. ah macha allah recruter leen ci biir fonction publique. Mm-hmm. suñ leen recruter ba pare dañ leen di fay comme ni ñuy fay fonctionnaire. fonctionnaire te kerem daal am na. crème metre arabe am na ah. te lépp muy ci magistère am mhm. kon kooku jar naa remercier looloo tax ñu tudde ko jaayisa bi waaye vraiment mhm. eh, incha allah yeneen yi fiy ñëw day am suite mais moom dañ ko ko honoré te mhm. mérité na ko vraiment ndax lim def ci daara def na ci lu rëy rëy lu am solo mais yan moo nekk ci euh, concours bi pour que quand même xale yi nga xamante ni ñu ngi nekk si yoon bi ñu gën a am motivation ñu gën a farlu ci loolu suspense la tax parce que président mi ko yéene jëm ah, ci am ah moo moo ko joxe xanaa gis tudd suba moo gañe mhm. mm-hmm. mooy jàng ci kanamu président président moo koy jox trophée mm-hmm. xam nga loolu lu am solo la ànd ak équipe gouvernementale am yëpp mm-hmm. honoré ñi nga xamante ne ñi doon jàng ñëpp incha allah dinañ honoré dina am premier prix dina am deuxième prix mais dinañ leen honoré parce que déplacement bi wootuñu wuy si la dafa am solo dafa am solo dafa am solo dina am ay prix d'encouragement aussi macha allah te xam nga xale yi boo leen xoolee rek ñeewente leen ndax ay xale lañ ba pare mais am courage maanaam même ku ku ku nekkul PSA mais ñoom mais ñoom ñëpp dina am dara dina am li nga xamante ne dina leen bëggal leen bëggal ñoom ñëpp soob yàlla dina am encouragement incha allah ku ci ne am nga mérite sa ñoom c'est ça ku ci ne am nga mérite vraiment mérite boobu war na war na war na waaw c'est ça c'est ça hmm. kon sa madame Mbacke xanaa ñu joxe rendez-vous ni ki suba rek incha allah. ci Dakar Arena lay amee Dakar Arena lay amee. Mm-hmm. à 9h incha allah ñu ngi leen fay xaar yéen ñëpp. Mm-hmm. comme ni ngeen ko defee woon ci le 13 et le 14. Mm-hmm. bu soobee yàlla euh, mobilisation bi ñu ngi woon ñëpp. Sénégal ñoo ko moom. ñooñ daara ñoo xewle. ñoo xewle kon incha allah bésu daara la kilifa diine yëpp ñëw incha allah. parce que le ministre aussi dafa dépêché ay commission. Hmm. këru diine bu ci nekk taxaw nañ fa waxtaan ak yow jox la li nga xamante ne mooy sa invitation hmm. wax leen lan moo waral ñu jëmmal lii ci daara. Hmm. impliqué si ñëpp ñëpp lañ ci impliqué. ñëpp lañ allah. organisation bu am solo lañ ci xaar ko ndax ñun gis nañu organisation bu yéeme bi fa nekkoon. concours alxuraan am ci réew mi mais euh, réussite ya daan am bu mel noonu lañ gisaat wala bu ko raw sax. macha allah la. yi ñu bàyyi ko. mais bu jógee ko toppee a am solo. incha allah loolu a am solo Mm. incha allah di leen sant di leen ñaanal ci mm. émission petit déj bi nga xamante ne à chaque fois ngi ci ñu ngi koy seetaan mm-hmm. mu am ci thèmes yu am yi ngeen di développé mm-hmm. di nuyu sama doom sama xarit sama turando <laughs> madame Mbacké mm-hmm. <laughs> di nuyu sëriñ mi nga xamante ne moo waral invitation bi soxna maamu maa ngi lay nuyu bu baax a baax répertoire miroir bi eh. miroir de l'islam incha allah incha allah incha allah di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Serigne. xam xanaa rek ñu daal desandi ak yow. waaw daal jëli suñu rubrique bi lay di royuwaay. <laughs>